Serigne Cheikh ñu nekk ci jamono joo xamante yi jamono ju naqaree wax la ndax li ak sensibilité yi da jamono yooyu bu ñu fa tolloo day baax ñi nga xamante ne ñoom la yàlla jël ay responsabilité teg ko ci war di wax ndax nattukaayu wax yi dafa bari te sunu xam-xam néew la ngir mën a jote nattukaay yooyu ndax waxkat bi dafa wax sëriñ Ablaye sa parcours yëpp mosoo gaañu wax li tax munu mosul gaañu wax nag sëriñ wax ni ñeent ñeent foog ñu maîtriser ko surtout ci jamono ji ji ñu toll mooy dafa am ñaar yu bokkul dañuy wax ni dafa am lu baax lu mat a am lu baax lu matul wax. am lu bon lu mat wax am lu bon lu matul wax ñeent ñii nag waxkat bu ko maîtriser wu ci gaañ wax lay dëkk comme nag suñu xam-xam bariwul te maîtriser wu yooyu dañuy yem ci sunu ci sunu niveau mooy liñ ko defee am mu jot wax ak suñuy moroom yi ndaw ci diine bi ñu bokk ñun ñëpp war ci di jëf àdduna am fu mu kilifa bi ñu orienté ci wax naa ko ci ay at ma ni énergie des koy canalisé te ku xool diine bi xool xam ni am na énergie yu bees yu fi dugg am nañu sawkan ngir liggéey ci diine bi waaye misaal bi ma lay jox gis nga taw bu ñu defoon ay canalisation nga xamante ne ndox mi bu wàccee fa lay jaar ngir ñu yóbbu ko fi mu war a dem ci lan lay dem maanaam day yàq bu ko canaliser day yàq kon lu ñuy ñaan suñuy kilifa mooy ñu am taxawaay ci ma mbooleem kuréel yi nekk ci diine liggéey ngir diine ji waaye ñu canaliser jënd ji ba nga xamante ni ci objectif yi diine ji am ci la ñuy ci la ñuy ndax loolu mooy tax ñu atteindre suñu objectif bu amul man bokk na ci sama message beneen bi itam mooy jàng nañ ni pour xeex lu bon da ngay indi lu baax ndax àddina bi boo bëggee xeex lu bon contraire bi ngay indi mooy lu baax boo bëggee xeex lu baax contraire bi ngay indi mooy lu bon kon ñun li ñuy ñaan mooy la Serigne Ablaye waxoon gaa ñi wax ju bees amu fi waxin bu bees moo fi am ndax Serigne Ablaye la maamam joxoon lii mission beeg wax lépp mu war ko jotal te jotal na ko te gën jaa rafet jotal ba tey ñu toog ay rakkam ko ci loolu di ko def ci gën jaa defi gën jaa rafet def kon ñun li ñuy ñaan mooy yàlla di leen defal ndaw te ñun ndaw ñi diine ji daa soog ensemble ñu dimbali suñuy kilifa ndax ñun bu ñu nekkee ci li ñu nekk rek ñoom ñoo am su nekkul ci la ñu war a nekk ñoom bu am jàmm loolu dafa am solo bi ci def mooy sëriñ bi li ñuy wax ne pour combattre lu baax kon dafa dafay rafet diine ji bu amee ñu fa nekk di góorgóorlu di jël seen alal di def jël di def. li muy def mën naa ci si ne benn ñu ngi jàkkaarloo moom Omar Niass mu nga fee jaamalaay mën naa leen wax ni bu ñu rombante woon ci benn xaw waaye gis nañ ñu rafet li muy def ci jaamalaay kon ñu mel noonu dañu ay place yoo xamante ni dañuy fexe di fa former suñuy ndaw ngir def leen jiiroo def ci xam-xam def ci pas-pas tey mën nañu wax ne projet bi mu yóbbu te ndoo euh, te ndoo yéen për dépensé ba plus de sept cent et quelques millions loolu pour lan pour def ci ndaw yi xam-xam na yu bëri nañ ko bàyyi xel ndax loolu suñ toll mooy priorité bi gis nga àdduna bii mbir yi am na toll na foo xamante ni bu fekkee yow da nga da nga jiite wala da nga nekk ci yi léegi koo ci ne bàyyil nangam réew bi la ko yóbbu du ko bàyyi parce que nit ñi dañu am liberté bu njëkk mag ñi samaan la wadaatan ma ni loolu jeex na parce que li ci dugg mooy pourquoi lu tax ñu koy def sama an wa taata sama an wa taatan la ba pare ñu ne la amaa ngi taata dana naan lu tax ñu koy def loolu nag bu ñu tollee ci jamono jooju kilifa dafay xam nu muy uufee njabootam ba mën leen canaliser teg leen ci yoon te sang loolu wàccu leen ko kon sang bi euh, bokkuma woon jël kàpp comme ni ma la ko waxee ndax dafa am jotaay yoo xam ne boo ko toogee rek li ngay yëg ci dafay doy fekk ndax lii dara gën ko neex sunu bàyyi Mouhamadou Lamine boobu ñuy toog ànd ak doomam Seydina Taaw may wax benn anecdote sëñ bi maa ngi gën Paa Maw mii dañu nekk ci oto ñoo ci jàngat bu rëy keroog ba Faa May ko. ñu ñëw ci yow wax la nga ni sol leen seen dàll leen ci Seydina sama yoon nekk Seydina moo xam ñu départ ci Seydina ñu dem ci moom dugaat leen dem leen ci samay rakk yi papa lu mu ci wax ngeen def loolu yaa ngi loolu jàngale la loolu jàngale la te li ci dëgg mooy ñu xam ni sunu kilifa yi ñoom xam nañ fi ñuy teg seen tànk pour ñun nañu xam fi mooy ak mbokk dafa neex te dañu war a góorgóorlu ci suuxat luy defar mbokk te bañ a suuxat loo xamante ni day tas mbokk ji la ñu bokk bàyyi ji daan na ma wax ni li ñu bokk mu ngi nii ci kaw li ñuy xëccoo mu ngi ci suuf ñu bokk mu ngi nii li ñuy xëccoo mu ngi ci suuf ay nag ay rakkam sax da leen dawal kon kii daa xam li mu mérité xam mooy lan mooy ñu summeeku takku liggéeyal ko ci mission bi nga xamante ni moom la ko maam jox ngir mu am ndam yokk ci ndam yi mu daan loolu ci la ñu leen di woo su may daaneel sama kàddu sëriñ bi dañu bëgg objectif dañu bëgg li ñuy wax mu toll ak suñuy jëf. waaye mbir dafa yëkkati projet bu mag projet bi tudd Taalal Jàmmalaay mu commencé ca wax ña ba tey mu yëkkatiwaat ko moo koy wër juróom ñu ne comme ubbi nañu ko bëgg nañu daal ñu ngi toog la ñu am ñu def ko ci mu doon ubbeeku di ñaan ko association koo xamante ne da ngay jëm ngir diine taaral jàmmalaay la ñu wax li muy def lu baax bu ñu ko liggéeyee ba noppi ñu nga jëlee ko yële di xaar sang yi pare ñu dindi waa benn denc ay góoram yi gën lañu am nañu njaboot mën nañoo seen yër jëriñ la rek ñun waaye lii seen yitte mooy taxaw ba fu ñu nekk suñuy jotaay duñ fa fekk duñu xeex. moo tax ñuy renouveler seen i matériel loolu nag képp koo xamante ne nii ci diine ñu war na cee bàyyi xel def ci sa alal kon loolu lu ci def leen ñu woo li ci des kàddu yi général ko moom libaas amul giraam sëriñ bi ñoo ni ñu ngi guddee ko un million ci projet bi di ñaan yàlla nga ñaanal ñu ba yàlla mottali suñu yéene incha allah rabbi ñu ngi organisé wu fii ba bitim réew wax nañu ni cotisation yi barkeer yi ci def tudduñu ko day ubbeeku ba keroog projet militaire yi incha allah rabbi ñu ñaan yàlla yàlla def ci ndam Serigne Cheikh ñu ngi lay ñaanal yow itam yàlla defal la ndam ca am. defal ko sëriñ Ibra ak képp koo xamante ni yaa ngi yor projet yoo xamante ni pour soppali diine ji la wa salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu